ñoo dëkkandoo ñoo dëkk fi di mat fukki at ak nangam at mu jot këram lay gàmmoo ci ñu ñu gàmmoo si ku fonkoon gàmmu duma taalibeem dëkkandoom laa dëkkandoom laa lan nga yëg bi nga yëgee maanaam euh, tey li am dama tiit tudd yàlla amula kenn affaire kàddoom doo ko dégg fenn doo ko dégg ci nguur doo ko dégg ci lenn nit ku baax ku tabe ku labir ku mën a dimbali nit man loolu laa xam ci moom. lan lan nga yég di nga nga di nga yëgee maanaam euh, événement. dafa lay bett. dama tiit dama tudd yàlla ndax euh, dëgg lañu ñun ñëpp ci yàlla la ñuy jógee ci lañuy delluwaat mais am na dee yoo xam ne day bette sama benn xarit bu may àndal moom tam la raqam ba mboqal ndeeg bàyyi gaañu boo jàddee nii kër gi ñu lool mu woo ma téléphone wax ma ko ma génn sama bureau ñibbisi ci ñëw rek. ñi ma xam ñëpp ak Abdourahmane Tilala Fall dañ maa woo téléphone ne ma yow sa paa bi de dafa no dafa gaañu ma ne ban paa ñu ne ma Tilala Fall ne leen Tilala Tilala kay mënta ne dimanche bële laa fa jóge ku baax nitu diine nit ku fonk nit. dugg ci biir saalam boobu ñu toog waxtaan weccoonte ma dem ñu ne ma gaañu na. mu bett ñëpp nag ba kenn xamatul foo nekk fi waaw waaye nag dañ ko delloo ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ma doom bu mujj bi am na trois ans et moo ñëw ba foofu moo tëfli ci noppam tudd ko waaw ñu koy ñaanal yàlla nag foo mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee te am nañ ci yaakaar wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal juuxi wa naxsi min amwaali wa anfusi wa samaraat wa basiri saabirina lazinahum isaa asaabatu musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika alayhim salawaatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muxtadun foofu lañ koy teg